regroupement et transporteur de Mbacké ñoo amaloon ab ndaje pour jàppale président Macky Sall ci teewaayu monsieur le maire Abdou Mbacké Ndaw maire de la commune de Mbacké ci teewaayu DG Gallo Ba mbooloo mu takku lañ fa gis président regroupement des chauffeurs Pape Diop Diaye yëkkati na fa ay kàddoom ngir ñu jàppale président Macky Sall mu am ndam ci élection yi ñuy jëm au premier tour. li may wax ci euh, ci jàppale ko mu am deuxième mandat. ñu ko defee ñoom danañ am li ñu bëgg danañ am li ñu ndax dama leen di wax ne leen ku ne xam na ne ñu Macky Sall bi muy jot ci réew mi huit cent quatre-vingt-dix la fekk quatre-vingt-quinze la fekkoon gazon bi huit cent quatre-vingt-quinze la fekkoon gasoil bi mu yóbbu ko ci cinq cent quatre-vingt-quinze keroog ba mu ko yóbbu ba léegi benn dërëm benn virgule tegu ko tegu ko ci kon loolu jar na koo sant chauffeur yi bu troisième masaan jot da ngay gis ñoo xam ne dañuy gaare seen oto ñoo xam ne dañuy gaar seen oto ngir ay patente ak i taxan wel taxan wel troisième mois lañ ko daan fay na patente bi ñu di ko fay neuvième mois saa bu saa ñëw transporteurs yi dañuy am problème te loolu lépp président Macky Sall dindil nañu ko kon loolu jar ko sante beneen bi ci topp muy képp koo xam ne kii transporteur nga ta am agrément ñu agréé la soo demoon di miti ji sa wata service de mën lépp loo xam ne état moo ko moom dañ la koy may kon loolu jar na koo ba tey beneen bu ci topp mooy damaa wax ne bu ñu njëkk dañ daan wax naan euh, transporteur yi ne chauffeur Sénégal yi jàmbar xëyee Dakar añee ji Casamance ñooy jàmbar waaye loola bañ koy wax 1974 su ba léegi tey jii la door a mën a am tey nga mën a xëyee Dakar aje ji Casamance gonte Casamance reere ji Dakar kon kooku def la loo xam ne ci ci ci ci ci réew mi lu jara lu jara bàyyi xel la li ci topp nag mooy ñun waa Mbàkke dañoo war a yeewu ndax nag topp di opposé di dem amul benn njëriñ dëkk bi li ko tànnee xam nañ ko lañ ko wax topp ci koo xam ne kii topp ci loo xam ne mënalu la dara dara dara dara dara soo ko toppee bu yàggee foofu lay jëmal mooy da ngeen di ànd sonn rek ànd daanu nañ nañ ànd ak ki nga xam ne moom président de la république bi fi nekk ñu ànd ak moom ànd ak sunu maire ànd ak sunu délégué délégué sunu sunu sunu directeur ñu jàppale leen ñu gañ dëkk bi suñ gañee dëkk bi ñoom seen bopp seen i ndomba tànk dana yokku dana yokku ndombay tànk yi ci dëkk bi boo ko defee mu jëriñ waa dëkk bi loolu mooy njëriñ. ndeket noonu it DG Galop yëkkati na fa ay kàddoom jëmale ko si ñoom sofoor yi di leen xamal ni ñu votel président Macky Sall mu am ndam au deuxième mandat. man ngeen dugal nit ci oto waxtaan moom ba xelam dal influencé ko mu woteel Macky Sall kon nag am nañ mbégte teew fii. di leen sant di leen gërëm ci engagement bi ngeen jël fësal ko it ci ndaje bu mel nii ndax bu leen neexoon ngeen sant Macky Sall ba pare du ngeen jël benn engagement pour jàppale ko bu leen neexoon tamit ngeen engagement yem ci seen i seen oto bañ a ndaje pour fësal seen jàppale ak seen cant président de la République Macky Sall nag bu dee dañuy wax ci dëgg rek mësuñu am président de la République bu mel ni moom. loolu du waxu par parloo mais mosuñu am un président aussi volontariste maanaam koo xamante ne nii dafa am yéene ci réew mi am yërmande am taxawaay ba pare liggéey réew mi ci juróom-ñaari at ci fànn yépp bu dee ci wàllu transport trente cinq kilomètres autoroute la fi fekk fi mu ne di ma wax ak yéen ëpp na deux cent kilomètres autoroute bu amee beneen mandat incha allah man li ma gëm mooy dëkk dëkk yu mag yi yépp autoroute lay doon boo demee Maroc Casablanca ak Rabat c'est plus de cinq cent kilomètres autoroute la amul benn dëkk bu mag boo dem léegi ci jamono dëkk yu mag yi oto maanaam tali bu daw di leen relier amut autoroute ngay jël ndax mooy voie rapide ba pare mooy voie bi ëpp sécurité ak confort am nañ ci firnde bu mat sëkk ak auto ilaa bi dina wàññi accident yi dina taxit booy tukki tey boo demee Dakar ñëw da ngay jëm dox sa soxla doo doo doo doo sonn tey amul benn risque accident yi day wàññeeku bu baax a baax a baax a baax waxuma li mu def ci patente yi waaye tamit tabax garde des gros porteurs dénk ñu projet boobu ñu tabax ko réaliser ko à Diamniadio Ousmane Sonko ñoo defandoo première année euh, université ba amanoo maîtrise demanoo ENAM mosul jiite ab service mosul nekk directeur mosul nekk DG kooku xamul état amul expert étatique kon du ko du ko du ko dégg réew mi ku mënul nekk chef de service mënoo nekk directeur xalaatu laa dénk Sénégal. Madické Niang du wax ay waxam ak keneen. monsieur le maire ay kàddu di leen xamal ne ñu voté président Macky Sall ngir mu am ndam au premier tour. waaw le chef de l' moo jàppale Mbacké ci ñaari forage ginnaaw bi nga xam ne dañoo amoon problème ndox gas nañ ko ba pare forage bu ci nekk xóoti na 331 mètres ndax ñu ngi ko dañu dem ba napp Maastricht pour mu am sécurité ñu ngi nuyu suñu Baye Mor Ndiaye gisuñu ko waa gas nañu deux forages bi ñu amee jafe-jafe ndox bi ñu ko njëgalee la chef de l'état dafa dafa nangul ñu pour gasal Mbàkke forage wante ci ci xolom bu rëy ak yéenam ju yaatu benn bi man ak bay baara mi ñoo ànd keroog biñ koy tàmbali mu ne dañ ci doolu château d'eau lépp ci programme bi nga xam ne ko teg ci wàllu accès à l'eau ndax jàpp na ne bépp sénégalais am nga droit war a am ndox ci fa nga ak saa ko soxlaa